maintenant soo bëggee nag de manière générale ñu dugg ci politique publique yi nga xam ne c'est au niveau macro là tu verras que effectivement nous sommes en train de faire des choses xam nga euh, cette explosion euh, colère chez les jeunes dafa passer par plusieurs étapes oui. et vous n'avez pas capté vous n'avez pas vu venir et je pense que la dañoo jëm ci euh, dañoo jëm ci phase chronique xam nga bi fi am na ku ko doon wax la dernière fois Khadim Bamba Diagne la je pense mu ne bi jeunes yi embarqué dans l'océan di bëgg immigrer au péril de leur vie ñu dem ba naan Barça wala Barça certains euh, chercheurs avaient averti en dix disant ces jeunes là bu ñu demee ba amatuñu possibilité dem Barça wala Barça parce que les jeunes meurent dans le désert euh, libyen dans le dans le dans le désert marocain euh, ñu ngi dee ci géej yi bu ñu toogee ci réew mi dinañ exprimer seen seen colère d'une autre façon dama lay liiral benn rapport boo xam ne le centre des hautes études euh, diplomatiques le CHED moom moo ko def et et le rapport est, est bizarrement signé euh, par le général de brigade Amadou Anta Gueye c'est le directeur général euh, du du du CHED donc faisant l'analyse euh, de la situation euh, sécuritaire dans la dans la bande du Sahel et au Sénégal précisément mm-hmm. mu ne dafa ne la bande sahélo-saharienne terrain de prédilection des groupes terroristes par son immensité et ses potentialités est devenu une préoccupation euh, sécuritaire. Alors, dans ce contexte, le Sénégal affiche une, une relative stabilité malgré l'existence d'un conflit en Casamance dont le niveau de violence a considérablement baissé et le risque de menaces terroristes, en plus des défis sécuritaires internes, euh, euh, le, le, le, le coût de la vie, niveau de vie très bas, taux de chômage élevé, forte explosion démographique et une migration accrue des jeunes euh, vers les pays du Nord. C'est-à-dire, il semble, il, il, dit, que Sénégal mu ngi affiché une stabilité euh, malgré un conflit latent à, en Casamance dont le niveau d'intensité a considérablement baissé. Mm. Mais li nga xam ne moom mooy défi Sénégal bi mooy le le niveau de vie le coût de la vie Euh, le chômage euh, l'explosion démographique la question de la de la migration et pour ne pas euh, écorner son son texte et donner un autre sens il dit gouverner dans un tel environnement nécessite une compréhension et une évaluation attends et une évaluation correcte des enjeux et défis afin de faire les choix les plus pertinents possibles pour se faire il convient de mettre en œuvre des moyens propres à faciliter la prévention, la gestion euh, des incertitudes au moment de prise de décision par la recherche, la formation, l'anticipation stratégique et la prospective. Mm -hmm. Ce que le gouvernement... Et, et, ça, je suis sûr que ce rapport-là mm -hmm. a été versé euh, dans un ministère et mis à la disposition des gouvernants, mais je pense que da ngeen raté le coach vous n'avez pas vu venir vous ne vous êtes pas préparé parce que le prix de la paix et de la sécurité aujourd'hui euh, c'est la prise en charge de cette jeunesse-là. Mais écoutez euh, Maimouna man je pense que la question ou la problématique euh, jeunesse de manière générale jeunesse au-delà des questions liées à l'emploi euh, effectivement dafa war a nekk benn préoccupation majeure du gouvernement et partout dans le monde c'est le cas. et exemple bu may cité bu gën a retanlu parce que da nga ma wax tuuti affaire migration parce que au départ les gens pensaient que la solution c'était Barça ou Barsax j'ai à l'Assemblée nationale benn député diaspora ne ma woy monsieur le président euh, monsieur le ministre nous beaucoup de choses que vous êtes en train de faire euh, euh, pour le programme Xëyu Ndaw yi pour le financement des femmes pour le, pour le financement des jeunes pour les formations les jeunes de la diaspora en ont besoin les jeunes ne ñu ngi foofu veulent qu'on leur apporte nos propres solutions. mais je ko doxatul. non non non xaaral dama lay expliquer rek dama lay jox benn exemple pour expliquer en réalité la conclusion bu mu ngi tëree foofu mooy que même soo demee Barça nga yaakaar ne c'est la solution au bout de un an tu vas te rendre compte que c'est pas la solution donc lu ma fa bëgg génnee foofu mooy que la crise jeunesse la crise d'emploi est générale tey soo demee France y a beaucoup de Français yoo xam ne aujourd'hui de plus en plus dañuy dem ay Canada wala les terres neuves. pour mën a am fa liggéey wala quelque chose comme ça alors que pourtant dañu bàyyi ay dëkk yoo xam ne a priori ñun selon nous ce sont des pays yoo xam ne euh, la problème la problématique jeunesse la problématique euh, chômage vraiment dañ ko jël en charge et pourtant c'est pas le cas si ajoute ces trois quatre dernières années il faut que ñu d'accord li fi xew y a Covid bu fi jaar qui a plus ou moins déstabilisé nos structures économiques il a aujourd'hui la guerre russo-ukrainienne qui est en quand même d'apporter euh, de, de, de, en tout cas nous sommes en train de subir les contre-coups de cette crise donc aujourd'hui am na ay jafe-jafe yu bëri yoo xam ne am waxuma nag que ne on a eu toutes les solutions et qu'à un moment donné il y a eu la crise qui a remis en cause toutes solutions qu'on a apportées mais dama lay wax situation bi nga xam ne moo nekk ci réew mi nga xam ne ça rend pas les choses faciles et c'est partout dans tous les pays africains mais c'est le monde dans tous les pays du monde maintenant au-delà il faut qu'on aussi des actions qui a été entreprise par l'État sur cette question-là de l'emploi bi nga xam ne moom nga ciblé tey ñun bu ñuy ñëw on a trouvé des situations qui sont là chaque fois on dit 300 000 emplois 300 000 jeunes 300 000 jeunes. mais ne me sors ne me sors pas. non non non xaaral non non non xaaral. vraiment non man dama vous avez passé 12 ans à nous parler de ces chiffres-là non du ma la du ma la wax chiffre man dama lay wax ay ah. politique yu nekk fii. non même seen politique yooyu. non non bàyyi ma wax ah pourquoi. mais tu me poses la mais mais mais donc tu me poses la question tu me dis je tu veux pas que. c'est-à-dire. c'est-à-dire euh, vous allez nous dire la même chose. mais mais laissez au moins dire la même chose. 450 milliards waaw ah, ah, mais non dugg nga foofu non man ba léegi maa ngi ci diagnostic bi laa nekk ba léegi maa ngi ci diagnostic bi may mun a on te dit 300000 emplois 300000 jeunes ñu ngi dugg ci marché emploi mais il faut que correctement et sincèrement ñu dugg ci xool profilu jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk sur le marché de l'emploi profil yi dañ ci wax. c'est un débat non non non non mais c'est c'est une réalité il y a quatre ans en mettant en place les les les centres xawma de de formation il faut au moins si tu me poses la question il faut me laisser dérouler yaa ngi dégg c'est une question qui est là la question ou la problématique de l'employabilité des jeunes daf ci posé wu avec acuité soo gisee ma koy posé xam nga tax ma koy wax parce que loolu mooy d'abord début solution bi xale yi dañ leen war a former ci métiers yi nga xam ne économie emploi yooyu lay générer parce que état nu créer emploi moom directement mën na nag impulser mën na nag travailler ba am croissance économique buy permettre avec l'effet multiplicateur ba euh, emploi mën ci gis boppam mais quels sont les profils que nous avons sur le marché et que nous avions sur le marché et aujourd'hui yan action la état bi entreprendre état bi def ba tey aujourd'hui on est en de changer la tendance la formation professionnelle aujourd'hui n'a jamais été une priorité ba baa Macky Sall ñëw président Macky di ñëw mu jël ay milliards dugal ko ci formation professionnelle yow yaa ngi fi woon Sénégal vers 2000 2004 man ma génération de jeunes man j'ai eu mon bac en 2004 je rappelle man bu may am xale yi bëggoon def formation professionnelle il faut que sa papa mun am xaalis pour nga def formation professionnelle da ngay judd tu as envie d'être ingénieur polytechnicien ingénieur électromécanicien wala ingénieur génie civil mais mu ne nañu wax ne dëgg da ngay def concours ESP wala da ngay def concours école polytechnique de Thiès mais at mi parce que jour concours bi da feebar et pourtant tu as tes aptitudes malheureusement sa papa amul wala francs yu mu lay fayalee école polytechnique de Thiès wala école ESP mais ça c'est une carrière qui est foutue tu ne seras jamais un ingénieur génie et pourtant tu avais les aptitudes aujourd'hui avec le 3FPT mais ça devient possible ñaata nit la état fayal pendant trois ans quatre xaaral ma yeggal la man soo ma waxee politique publique il faut que tu me donnes l'occasion et l'opportunité au moins pour une fois comme tu dis que pour la première fois da ma invité pour ñu mën wax ci politique publique mais au moins tu me laisses dérouler mes mes idées que tu es en train de faire xam nga ce qui est c'est que vous avez le même mais parce qu'on a les mêmes actions l'action la conséquence en deux mille depuis deux mille vingt et un deux mille vingt deux dañoo gis benn violence benn expression de colère ci jeunes yi boo xam ne yéen daf leen jaaxal ba yéen da ngeen jàpp ne parfois man papa je vois j'ai vu dans ces manifestations la des jeunes agir j'ai di à certains de de de des journalistes ici non ñii duñu ay sénégalais. pourtant ce sont bien de jeunes sénégalais. mais mais mais mun na mais mun na. loolu moo leen loolu moo war a tax ngeen ngeen. vous vous devez en venir à à une évaluation et que vous vous rendiez compte que ces mécanismes là. ne sont pas si opérants que ça non non non mais mun na xam nga man damay wax en toute sincérité en toute honnêteté sànq sama wax wax naa la ne la du ma fi toog naan lan tout ce que l'État a fait pour les jeunes c'est gongo c'est très bien mention spéciale mention extraordinaire yaa ngi dégg man du ma wax loolu mais quand même tu me laisses quand même ma explique leen ce que l'État a fait et considéré comme un résultat quand même assez pertinent boo xam ne même s'il n'a pas pu apporter des solutions pour toute la jeunesse du Sénégal au moins nañu nangu ne ce sont des mécanismes qui ont permettre à un certain à certaine catégorie de jeunes de s'en sortir Mais... quand on parle quand on parle de programme xëy ndaw yi tu un reportage un jeune qui man jàng naa ba juddu awma chance def benn formation awma diplôme ci li nga xam ne moom la fi président Macky Sall andi def naa ci ba mun naa ci def lii quand en jeune te dit jàng naa c'est vrai man entrepreneuriat laa bëggoon def mais ci FONGIP wala ci DER fexe naa ba apporter une solution à mon propre problème ba tey maa ngi fii mais loolu kenn mënuñu tere ñu wax ko parce que c'est une réalité qui est là je ne dis pas nag que loolu nga war a jël comme exemple pour dire globalement tout va très bien waxuma loolu m je suis d'accord avec y a des efforts qu'on doit